parce que lépp lu ñuy dundee rek on n'a pas une production oui. un pays qui n'a pas de production mënul wax ni que man am naa souveraineté c'est pas possible c'est impossible en parlant peut-être de la monnaie locale mhm. euh, Fatima bi nga xam ni ça a suscité quand même euh, beaucoup de débats mhm. est-ce que yaakaar nga ni peut-être économiquement parlant dina mën a booster comme yaa ngi koy wax sànq mhm. mais économie on n'arrive toujours pas à le à le gérer comme il le faut parce que xam nga euh, bu ñuy wax monnaie euh, bu fekkee ni que yow sax sa sa li ngay li ngay sax xaalis bi nga xam moom ngay jëndee tey tey tey commercant bii dem di jënd ji buy génn du yóbbu CFA parce que CFA bu xasee génn fii rek ab kayit la amatul njëriñ. Mm-hmm. CFA bu génnee fii amatul njëriñ. tu es obligé da nga koy changer. ça dangay def change def ko benn devise soit nga def ko dollar nga def ko euro moom ngay jël yóbbu ko pour mën a jënd ji kon foofu da ngay am da ngay am déperdition da ngay da am loo xam da koy perte. boo demaatee ci boobu réew tamit bu fekkee ni que réew moom da koy ñëw jëndee en dollar aussi tam kuuru dollar bi nu mu mën rek moom ngay ànd ak moom. ça bu fekkoon ni que da ngaa jëndee tey ji dollar te exemple nekk ci 640 nga jëndee ko fii Sénégal nga dem yegg dëkk ba nga xam fa ngay jëndee jii boo ñëwee fekk dollar bi baissé kon yow pertaat nga. oui kon yow xam nga kon yow gérer woo. très say flux yow gérer woo dara sa veut dire que ñun suñu réew yi. en réalité donc ci ci wàllu tey lan moo war a doon taxawaayu mhm. nguuru Sénégal gi nga mhm. xamante ne ne tey ñoom lañu ñu dénk réew mi ngir mhm. jàppale askanu Sénégal ci wàllu woowu ngir ñu mën a am li nga xamante ne moom moo di sénégalais yi euh, dund dund mu mucc ayib te itam ñu mën a wàññi njëg bi ndax gisoon nañ ne euh, peut-être nguur gi fi nekkoon dafa subventionné woon yenn produits yi ba ñu xawoon stable waaw mais xam nga subvention boobu il faut mu continuer parce que bu ñu teggee seen loxo ñoom subvention ba day gën a métti il seront obligés de continuer cette subvention ba nga xamante ni ñoom leen li nga xam moom leen bëgg léegi mooy indi production ci réew mi après ñoom moom la ñuy commencé def mhm. ça veut dire il faut que daa ko ñoom à leur niveau ñu commencé nag teg nag politique bi nga xamante ni mooy indi production dans secteur d' activité boo jël ça dama leen secteur d' activité boo jël rek dafa am loo xamante ni mooy sa fa la consommation ba nekk saa veut da naan man sama sama mbay mhm. daf may dundal ba pare jox ma xëy sama agri sama sama élevage daf may dundal jox ma xëy ça veut dire que ñun tey suñu élevage dundaluñu joxuñu xëy parce que tey lu toll ni tabaski yow xam nga ni Sénégal depuis depuis min depuis ba àdduna àdduna ba tey da ngay dem tabaski Sénégal ñëppay jënd xar mais xoolal importation de mouton bi c'est extraordinaire loolu Sénégal waroon na ko dépasser bu yàgg donc politique boobu noonu nan nga koy mënee mooy da nga boo nee bu nee dootuma importer ci ceeb dootuma importer xar ci réew mi deux mille vingt cinq Sénégal dootu importer te xar dootu importer te nag. c'est possible. mën nga koo def loolu rupture la. su boobaa maintenant tu vas créer maintenant ce qu'on appelle de la production au niveau local. su boobaa ñi nga xamante ni ñooy yarkat yi ñi nga xamante ni ñooy ñi nga xamante ni ñoom c'est des éleveurs avec l'État ak les avec les opérateurs économiques ak les entrepreneurs. très bien ñoom ñooy jël. en charge boobu élevage. yóbbu ko ci système boo xamante ne moo ñuy permettre pour que ñu mën a am lu ñuy wax élevage extensif. nga xamante dañu mën a donc di am. très bien dina ñëwaat ci yow euh, euh, mhm. doyen amoon loo ci sànni concernant li nga xamante ne moom moo jëm ci mhm. wàllub euh, xarandi yi nga xamante ne sénégalais ñu ngi koy def pour wàññite dund bi. waaw xam nga suma ma dégloo sama xarit bi xam naa bu doon sama mbokk njaay ni taxawu leen parce que mhm. xamul xew ci réew mi réew mi nit ñi dañuy xaar bëgg a maanaam ma jël exemple kaldu am ko leen kaldu bi baaxul këpp cin li mhm. leen damay defar cere cere moo dàq kaldu mu këpp cin li léegi su ma ko déggee moom dafay mel ni koon këpp nañ cin li ba pare nit ñaa ngi toog di xaar reer ñu ne dem bay dugub ba dag ñu xaar si ñu bay dugub ba pare nag doog a am dugub ba pare balaa koy bay bay ko ba pare wal ko doog dem ci machine ba yow yëpp noonu nag doo nag ne yow yaa ngi dem mooñ bay defar cere mooy le temps mhm. n'attends pas en deux mille vingt neuf économiste nga xam nga ne projection yi bu ñu ko rombee dëgg yooyu ngay joxalul ay Inde ak yooyu ñoom tey li ñuy bay pour seen bopp doyatu leen maam ceeb bi ñun fi ñu koy jëlee fi ñu ko daan jële si ñooñu ñoom seen ceeb doyatu leen ñoom. Mhm. ba ñuy ñëw fii sax di jënd ay suuf ak lépp problème boobu la ñu am donc c'est une urgence urgemment urgente la la temps ne nous attend pas. vous voyez léegi nag ñii ils nous ont vendu des solutions clés en main donc mooy saxal tooba saxal maama pour rester ci sans recyclage bay donc ñoom xam nga lu ñu war a def nag dañoo war a fagu rek ci premier conseil des ministres ñu joxe des indications claires par rapport à l'autosuffisance en riz mu bañ a doon autosuffisance en riz mu mujj ay reetaan parce que loolu laa fi gis ni finalement quoi tout retourne de cirque finalement parce que waruñu toog nii di xaar ñu ay eh, nañu xaaraat ak lii li ngay wax nii dafa yàgg de parce que loolu noonu xam nga commencé woon xam ne du ma ne autosuffisance mais causes yi il faut les causes structurelles nga delluwaat ci la moo tax amatuñu loolu. élevage bu baax mbay mu baax et cetera les structures d' encadrement yëpp disparaître léegi nga bëgg a reconstituer perte boobu yëpp sur 40 ans après nga ne da koy reconstituer si lan kii temps